Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa diaspora waa tey vidéo bi ñuy def dañuy def benn taxaw seetlu vraiment waaw vidéo bi ñu ko jamale aussi ci sénégalais yi di wax ak président Macky Sall parce que vraiment il est temps que ñun mu respecter suñu dëkk. parce que il faut que ñu xam ni Macky Sall Macky Sall du du du roi Macky Sall c'est président de la République bu nga xamante ne dafa ñëw dagaan baatu askan wi dagaan baatu askan wi jox ko suñu réew am ci moom yaakaar yaakaar boo xamante ne 2012 65 pour cent la Sénégalais yi voté pour président Macky Sall te bi ñu koy voté yaakaar changement lañ doon xalaat ci moom léegi ñu dem ba 2020 21 ñu ngi nekk ci 2021. Sénégal yaakaaroon ak recul démocratie bi nga xamante ne ci lañu nekk benn espoir u jeunesse bi yàqu na amatuñu benn espoir di dee ci ndox mi di dee ci géej gi amul benn benn yoon bu Macky sàll di naqarul li xew ci Sénégal Sénégal marché yi ñu ngi tàkk Sénégal accident yi bari na Sénégal agression bi bari na Sénégal lëndëm na amul assainissement santé bi doxul prisonniers yi ñu ngi dund ci ay moment yoo xamante ni ay animal sax waruñu dundee noonu Sénégal nekk ci dëkk boo xamante ni tur bi baat yaakaar beeg sanc bi fa am muy ñaan waaye lenn loo xam boo ñëwee Sénégal fekk ko fa amul ñu toll ci jamono boo xamante ni vraiment mu ngi demee ba mën a toog ba deux mille vingt gis jigéen boo xamante ni daanaka boo xoolee liñ lay wan ci moom dara looy rafetlu ci moom amul mu amul dara looy rafetlu ci moom. tout récemment vidéo yi ñu lay génneel di la ko won peut-être que jàpp nañ ni suñ la ko wonee dangay gëm ni kii war naa mën a seq ak Ousmane Sonko dara waaye képp ku am dara am xalaat di nga xam ni kii ku ñu yabal la te kenn kuy rafetlu comportement jigéen boobu amul parce que jigéen am na foo xamante ne boo demee ba bëgg a exposer sa bopp dem ba jaloux ci sa corps ça veut dire ni yow xamoo amoo kooku ku neex a maîtriser la ku neex a la aussi. ñu toll ci dëkk boo xamante ne nag aussi Macky Sall dañ ko jox suñu dëkk yaakaar ni mu dana nañu gérer suñu dëkk parce que bu ñu xoolee li gën a doy ci dëkk mooy kilifa gu toog di waxte te moom biir ko ni lii muy wax du dëkk muy wax te lii muy wax du dëkk nga xool ñi nga xamante ne ay ay nee nañ ay député lañu képp ku ciy wax naan da ngay jéem a défendre Ousmane Sonko c'est pas vrai dépendre défendre ko parce que munoo ñëw fekk koo xamante ne xale bu ndaw boo xamante ne kenn xamul fan la jóge kenn xamul fan la jóge fekk ay responsable yoo xam ne ay yaakaar parce que ñun bu ñu demee ba ñun ñi ñu yaakaar ni ñoom la ñooy gouverner suñu réew suñ leen mënul protéger war a am benn doxalin bu ñuy doxal loolu ci fonk sa dëkk la aussi nit dafay fonk dëkkam gëm dëkkam ba bu ñu ko waxee dëkkam mu am amu fier ci moom américains yi ban système lañ leen tegal ba ñu jàpp ne ñoom ñooy numéro un parce que wan nañ leen ay mat ñun suñu dëkk lan lañ ñu fa wan loo xamante ni tey di nga ci jël référence ñi fi ñu waroon référé wu dañ leen dañ ko écarté complètement lan lañ ñu tegal actuellement ñan la ñuy nekk teg au devant de la scène ñoo xamante ni lan lañ xale yi mën a roy ci ñoom pour ëllëg développement am ci réew mi ñan la parce que dooni ma da jël musicien teg ko au devant de la scène dooni ma da ngay jël un lutteur teg ko au devant de la scène parce que ñan ngay gis ci ñooñu ban chanteur nga gis ci situation bii ñu toll chanteur bu génn défendre intérêt Sénégal ban lutteur nga gis mu ñëw taxaw def face alerte euh, état bi gisuma ko ku ko gis aussi nga wax ko gisuma ko ku ci ne yaa ngi préparé sa combat yaa ngi demandé ku la jàppale ci sa combat te dëkk nag aussi bu ñu bëggee dem parce que am na ñoo xamante ni bu ñu jotoon réew mi dëgg dëgg dëgg lutte bi ni mu war a doxe dëgg ku ne xam ne ne doxewu ko bi li mu war jariñ dëgg-dëgg ku ne xam ne ne jariñu ko mais bu ñu demee ba fekk koo xamante ni jigéen la boo xam kenn rafetlu ko war a mën a ñëw fekk koo xamante ni dafa préparé wu di parti ay jeunes yor ko muy am yaakaar nekk troisième te buñ ko tegee ci yoon ku ne xam na ni du troisième parce que élection yi ni mu demee ku ne xam na ko donc bu ñu demee ba fekk koo xamante ne lu ko neex lay mel ñëw fekk nit accuser ko banalement nii ñu war a mën a déstabiliser dëkk bi nit ñi croiser les bras bëgg seetaan Macky sàll mais bu lakkee ku ne ku toog ni sama yoon nekku ci bu lakkee dina la fa fekk dëkk bi foo ñu génn wax Macky sàll que ni dañ ko jox dëkk bi pour mu liggéey ko gis nga dëgg neexul. te dañu toll ci jamono boo xamante ni Sénégal képp kun la mu ngi dox yaa ngi wax leneen lu dul loolu kilifa yi nga xamante ne nag vraiment ñoo fi nekk ñuy ñaan yàlla na ñu génn ñu ngi wax sax baatin ñu ngi ñii ñu ngi ñaan ñu ngi wax ci suuf mais gumba gu tëx doo wax ak moom ci suuf boo waxee am na ñoo xam war nañoo mën a wax ba mu dégg liñ koy wax parce que kilifa yi aussi dañu am rôle bu am solo bu ñuy bu ñuy euh, taxawee ci dëkk bi taxawaay bu ñëpp rafetlu aussi. parce que quoi qu'on dise tamit kilifa du lu yëngu lu ne mu wax am na ñoo xam seen wax dinañ ko wax waaye fañ ko war a waxee lañ koy waxee ñu ngi ñaan ko ci waxit nga gën a dolli rek wax ak moom parce que gumba gu tëx la goo xamante ni li nekk ci kanamam bëggul dara lu ne ci kanamam bëggul dara lu taxaw ci kanamam te dëkk nag pour mu dox il faut mu am opposant opposition mënul ñàkk ci dëkk démocratie bi ñuy wax parce que dëkk bi bu ñu xoolee tey Macky Sall mu ngi si signé ay projet yoo xamante ni borom ñaari tur yi ñu ngi yàq dëkk bi mu ngi leen di dooleel te ñooñu waxuñu ko te li nga xamante ni yàlla tukkal na ci àdduna te ñoom ñu ngi leen di gën a may doole ci Sénégal gi ñu nekk muy borom ñaari tur muy jigéen ñi di nekk ci seen bopp muy góor ñee góor ñi te loolu ñu war ci wax mu am solo te ñii nga gis ni tey situation yi lay profité wu pour mën a signer décret bu ko neex donc dañuy xëy rek mu teg loo xamante ni day fekk état bi taxaw na keno yi dëgër na ba nga xam kenn dut ko mën a dindi kon nañu jëlaat réew parce que tey jii bu fekkente ne dañu jël xale yi xale yi jeunesse su sénégalaise bi boo leen gisee ñi leen di tegal comme référence du ñu ay référence parce que bu dee wàllu musique nit dafa war a liggéey ba di jot mu dem seet mu dem mu dem bu dee dafa bëgg divertir mu génn dem bu dee wàllu lutte bi aussi la même chose dafa war a am liggéey ba samedi dimanche mu génn dem stade seetaan yi li muy seetaan mais toujours priorité bi moo war a nekk liggéey mais bu ñu demee ba sénégalais bi liggéey nekkatul ci moom moom pour moom amatul yaakaar fan la xalaatee foofu lay liggéey léegi dëkk bi lépp ci lan lañ ko teg ci kaw business ci kaw politique ci kaw fen ci kaw kàcc ci kaw lépp mais dëkk boobu fan lañ jëm kon Macky Sall il est temps que le peuple bi jóg def fas ak moom xamal ko ni ko stop Macky Sall parce que il est temps aussi bu ñu toogee croiser les bras suñu réew fa mu koy yóbbu duñ ko bëgg te réew mi moomu moomu ko dañ ko jël réew mi jox ko dafa dagaan baatu askan bi def lu tour du Sénégal xam jafe-jafe askan wi. kon kooku buñ ko joxee réew mi du ñu ñun du ñu ay malien wala guinéen ay sénégalais lañu war a mën a am do am am droit ci suñu dëkk kon faw sénégalais yi di génn di wax parce que lii ñu ñuy tegal du li ak réalité bi c'est diamétralement opposé kon il est temps tamit ñu gën a conscient conscient waat parce que nit ki lu mu néew néew néew néew xam-xam bu ñu toogee bu defee analyse dina xam lan mooy dëgg ak lan moo dul dëgg kon dañu xool priorité priorité Sénégal bi lan la Sénégal amul assainissement Sénégal amul dëkk yoo xam ba léegi courant eggu gu fa am na ñoo xam amuñu post de santé am na ñoo xam amuñu tali mais ay tas de problèmes yoo xamante ni ñu waroon ci vis nekk ci loolu. autour de l' essentiel mais dañuy ñëw créer toujours Macky Sall politique politicienne bi la bi mu fi toogee ba léegi Khalifa Sall euh, Karim Wade yooyu mooy lan te Sénégal ñun ñu toll foo xam dañu soxla dem suñu développement. yor yor pétrole yor suñu ressources naturelles yi bëggul ko ci wax kon léegi il faut bu ñu toogee naan ay Macky Sall yoonam nekku ci sa pas vrai parce que état bu ci loxoom duggul woon ñaari citoyen dong du demee nii ampleur bi moom kon il est temps tamit parce que détails yi nga xam dëkk yaa ngi dox di avancé di dem seen jeunesse ñu leen école publique baa ngi nii xoola ne mel santé doxul éducation doxul tey ji ñu ñu bàyyi suñu réew mi yël l'essentiel bi teg ko nale bëgg a song benn nit rek ni dama koy déstabiliser mais pour pourquoi yàlla mooy jël nguur di ko jox ku ko neex bi nga xamante ne ni yow mii injustice dal na sa kaw population bi dafa gën a jàppale la population bi la jàppale woon nag moo fi nekk ba léegi tey ji boo xoolee Macky Sall ñaata nit nga nekkaloon bi ngay jot réew mi ana ñooñu tey ji ñaata nit ñaata chef religieux ñoo nekk ci suuf nga dem jaale leen ñaata homme politique ñoo nekkoon sax wet tey ji dem nañ dugg ci biir suuf muy suba muy ginnaaw suba dangay dugg ci biir suuf kon am na Sénégal yi foofu ñu yeewu xam ne àdduna nit dee benn yoon la ko nit di def kenn appelé wul pour violence wala dara mais sa réew war na la mën a jaral tey ji injuste bu fa nekk nga taxaw wax ci ba mu deñ loolu lañuy ñuy sénégal yi ñu jóg taxaw def face ak Macky Sall ci problème bi parce que du ñu bàyyi muy taal suñu réew mi ci ay ay yoo xamante ni c'est pas vrai jël benn jigéen bu ko neex boo xamante ni ku ñaata jigéen ñoom moom seen bopp Sénégal bu ñu bàyyee kii mu dem kon keneen ak keneen dañ ko koy def kon foofu ñu taxaw ci lu mel nii taxaw ci lu mel ni gendarmerie responsabilité bi mu ci am ñu joxo ko ba mu mat sëkk mais du ñu ñëw rek ñëw jël toog naan ay ñaari Sénégal te te nañ waxtaan Sénégal mooy dëkk boo xamante ni tey ñi ñi nga xam ñooy seen i personnalité dañ leen di def comme ay ay je ne mais ban dëkk la ñuy nekk dëkk da nga war a fonk sa dëkk fonk ñi nga xamante ni Macky Sall war nañ ko mën a jox cër comme président de la république ministre yi ci nekk député ñun ñëpp dañ leen war a fonk mais ñoom it dañu war a am matuwaay taxaw taxawaay boobu. mais bu dee ko ciy wax toujours sa intérêt la ngay wax mais xooloo intérêt réew mi mais kon yow ban lan ban mérit ban mérit ngay am amoo benn respect kon kon il est temps que Sénégalais yi jóg. génn taxaw def fas ak Macky Sall bañ a toog di croiser les bras naan ñaari sénégalais ñoo ko séq ak mais boo xoolee ñaati nit la jàpp ci Pastef mais kuy mel noonu bu la koy def ban yaakaar ngay am ci moom bu doon dañu toog rek croiser les bras ni kenn mais ñaata arrestation la ñuy def mu jëm ci mu jëm ci lan mais dëkk dañuy ñëw rek toog croiser les bras bàyyi nit ñi di def lu leen neex du yoon ñuy appelé waat yi ñu génn def fas ak régime bii parce que du yoon. Macky fi mu bëgg yóbbu senegal taal ko dem yoonam lay def ñun ñooy subir conséquences yi am na ñoo xamante ni lan la ñuy def seen intérêt moo leen bàyyi ci réew mi mais du dëgg gu ñuy wax parce que ponkol muy wax te li muy wax lépp di ay kàcc mu toog di ko mel ni bëgg ku koy gëmloo nit ñi c'est pas du respect quand même waaw jërë ngeen jëf di wax asbunallahu wa ni'mal wakil Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.